te kiñ fàddu du rey mooy yàlla yàlla moom mi ngi teew waxtu wu nekk yow doomu aadama ji kay yaay fàddu rek waaye yàlla moom mi ngi teew euh, mu ngi teew waxtu wu nekk de am na nag rey yoo xam ne ñoom ñoo la fàddu lu demee ni ki ndakaaru xamuñ ci dara léegi da ëllëg gii di ñëw rey bu la ci ñun xamuñ ci luy xew si loolu yëpp ay rey la yoo xam ne yii yaa leen fàddu yii ñoo la fàddu yi nga xam ne nag ñoo la fàddu doomu aadama am na si ay pexe léegi ba nga xam ne lu bëri loo xam ne rey la woon fi mu ne dootul rey bu ndax doomu aadama yi am nañ ci pexe ba génne ko yi nga xam ne nag mooy rey bu doomu aadama amu ci pexe mooy li nga xam ne yàlla moomal na ko boppam ne lii man yàlla maa ko moom man rek maa ko xam loolu moom doomu aadama ji xamu ko de ni kii maa tadri laa tadri nafsun maa za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamuutu loolu doomu aadama xamu ci dara kañ ngay dee waxtu wooy dee fooy dee doon doomu aadama xamu ci dara yàlla rek ci xam dara de waaye leneen lu dul loolu nag doomu aadama seen kattan yi may na leen bañ mën a xam yoo xam ne ba xam-xam àggagut fii dañoo foogoon ne xëy bu la demee ni ki asamaan si dina taw suba suba dina taw am nañ ay pexe yu ko xamee yaa am nañ ay pexe yu ñu xamee itam ay xew-xew yoo xam ne xewaguñ te ñu ngi xew si yooyu yëpp amal nañ ko ay pexe yoo xam ne àggale leen ca wax nag dañoo foogoon ne loolu xaybu la waaye dëgg-dëgg du xaybu gi nga xam ne moom la yàlla santaane de moom la yàlla santaane ñu gëm ko de ndax loolu yépp ñu ngi ko bind mu ngi ci biir àddina bi jaww jeeg weer weeg xew ci asamaan seeg xew ci suuf yépp mu ngi ci biir euh, dun bi nga xam ne yàlla bindal nañu ko bon nag dun bi ku ci nekk loo ci nekkal rek say góorgóorlu say itte mën na laa àggali nga xam ko ndax loolu gannaaw bu ñu ko yàlla defee ñu ngi ci biir dund bi di ci dund ak nekk ceeg yépp def cee teg nagal nañu wa sax lakum maa fi samawaati wa maa fi l ardi li nekk ci asamaan li nekk ci suuf yépp yàlla tàggatal na leen ko teg na ko ci seen euh, teg na ko ci seen bëgg-bëgg ak seen dogal ni ngeen ko na may yépp yàlla yàlla may sant na asamaan ak suuf ak li ci seen diggante yépp yàlla ndax na leen nekk leen ci service su doomu aadama lu mu bëgg rek def ko ci yéen nangu leen nangu leen mu def ko de su ko defee nag lii àggali doomu aadama ci foofu mooy xam-xam xam-xam boo xam ne xam-xam bu dëggu la ndax yàlla lu mu rek daf ko tëralal ay luwaa yoo xam ne ci luwaa yooyu la ñuy jaar ba àgg si luwaa yooyu nag mooy xam-xam ku bëgg xam ala foog da nga jaar ci daara ji daal wala nga jaar ci école bi ku bëgg a euh, ku bëgg ku bëgg rek la bëgg rek yàlla tëral na la yoon yoo xam ne yoon yi mooy jaaruwaay yi àggali la àggali la ci ci li nga bëgg su ko defee nag bëgg-bëgg boobu nag yépp yàlla nga ko dëndëstan ci biir xam-xam ba pare wax leen ne yàlla moo leen xamal allamal insaana maalam yaalam rahmaanu allamal quraana xalaqal insaana allamahul bayaana loolu yépp yàlla moo ko xamal doomu aadama xam-xamu doomu aadama la bon nag bu jaaree ci yooyu yépp dana mën a àgg ci li nga xam ne mooy gëm gi nga xam ne mooy gëm gu amul sikk sàkka ne yàlla am na lim ñu dig ne dana am gis liñ ci gis gis nañ ko liñ ci gis ci tutam moog liñ gis ñoo am képp ndax yàlla ko wax te yàlla mi ngi nii teew mu ne ñooñu nga xam ne mel nañ noonu nag ulaayika ñooñu la wa ñoo ñooñu la gaay ñoom mi umul muflixuuna ñoom de way texe de waaye inna alladina naka ñaaña kafaru weddi nañu yi nga xam ne nag dañoo weddi yàlla sawaun aji hemoo la alayhim ci ñoom anzartahum de nga leen am dam tunzirhum ikki waade tila leen lay ci ñu de ndax dawe na ci xam-xama bi yàlla ne ñooñu duñ gëm mukk laa dina ak loo mën ci def itam yàlla jiital na jiite na ci xam-xamu yàlla mu xam ne xeefa yooyu du duñ gëm de yàlla dogal na ay mindeefam ni mu ko bëggee ni mu bëggee ay mindeefam noonu la ko dogalee dogal na ci ay mindeefam yoo xam ne may na leen ca ezel bam leen bindagut ne ñii dinañ gëm yàlla dogal na ci ay mindeefam yoo xam ne nekk na ci xam-xamam ne ñii duñ gëm yàlla loolu nag ba moo tax yonent yàlla Muhammad nekk ci biir Quraysh di woote di woote ñuy weddi ba mujj eh, yàlla ne yàlla ne leen inna alladina naka yaa ni kafaru weddi nañu sawaawun nga jexe moo la alayhim ci ñoom anzartahum waat nga leen am lam tunzirhum ikki waadu la leen laa na daw na ci xam-xamu yàlla ne ñooñu di gëm de ñooñu ñooñu di ñàkk gëm nag ay ay ay ay ay xeet lañ xeeti ñàkk gëm yàlla mooy kufru billahi tabaraka wa ñetti xeet la am na kufru goo xam ne kufru làmmiñ rek la da weddi ci sa làmmiñ rek waaye sa xol gëm na lu demee ni ki iblis iblis ku gëm yàlla ku xam yàlla la ku xam yàlla la bon nag bu demee ba weddi yàlla daf ko weddi rek ngir saay-saay ak làmmiñam waaye xam na ne yàlla mi muy weddi mi ngi fi te noonu mu meloo yépp xam na ko ba pare dem weddi loolu kéefar la waaye kéefaru caay-caay ak topp sa bakkan rek la am na kufru goo xam ne dangay ngay yàlla ci sa eh, da ngay wax ne gëm nga yàlla ci sa làmmeñ fekk sa xol gëmu ko loolu mooy kufrul munaafiqiina yi yi nga xam ne dañuy wone ne gëm nañ yàlla waaye seen xol gëm yàlla nekku ci su ko defee loolu itam xeet la ci xeetu kufru yi am na kufru yoo xam ne na kufru kufru cosa mataas rek la da gëm gëmoo yàlla te bëggoo ku gëm yàlla alladina kafaru wa saddu an sabilillahi nga xam ne ñoom weddi nañ ku bëgg gëm sax yàlla ñu jéem laa fekk pour pour jege ji gëm yàlla ñetti xeeti euh, kéefa yooyu ñoo nekk am na ci euh, kuf yooyu nga xam ne euh, weddi yàlla weddi yàlla ñoo xam ne seen xéefar gi xéefar gu dëggu la comme kéefaru ñii wax naan yàlla amut ak kéefaru Quraysh yi héefaru jamu jaamu jaamukati xiram yi yoyu seen kufru kufru gu deug la kufru gu wér ci ñom la gu leer ci la kufru nak amna yenen xaj yo xamne tudde nañ ko kufru waye deug deug do kufru de lu deme ni ki yàlla wax na ci alquran ne qulillahi ala nasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabilan wa man kafara wa man kafara manam ku demut ku baña dem ta am nga lo deme fofu du da doonu ne waa ji dafa doon xéefar waaye rek am na lu ko yàlla digal mun na koo def defu ko mu wax ne wa man kafara waaye taxul mu doon xéefar de am na kufru yoo xam ne kufru weddi yàlla ci sa weddi weddi yàlla ndax amuloo loo xam ne dana la dëgëral ne yàlla am na mooy yi nga xam ne yàlla ci na leen rek ci ezel bindal bind na leen bindeewu leen gëm yàlla waxtu wañ waxanteeg yàlla wa a yawma lastu bi rabbikum xaalu balaa am na ñuy wax ne balaa ak nangute waaye am na ñoo xam ne wax nañ balaa dañoo dégg ñu ne balaa rek ñu ne balaa ñu wax loolu waaye ñooñu nag ci la xéefar yi di bàyyeekoo na naa fekk yeeg ñooñu ñëpp ci euh, foofu la bàyyeekoo de mu ne xéefar nag li koy xaddu li koy di koy dayal képp koo xam ne weddi nga li yonent yàlla muhammad indi te mu wóor na la ne yonent indi na ko nga weddi ko kooku xeefar la yonent wax na ne moo indi julli képp koo xam ne weddi nga julli kooku xeefar nga yonent moo indi moo ñu indil weeru koor képp koo xam ne weddi nga weeru koor xeefar nga weddi alquran xeefar la yi nga xam ne yonent indi na ko yépp mu wóor la ne yonent indi na ko boo ko weddee rek yow xeefar nga de ah, nga weddi ko ci wax ak ci jëf yépp gannaaw weddi nga rek wala def nga màndargaay muy wone ne weddi nga rek bu boobaa xeefar nga wet ndax weddi nga loo xam ne sax na bil kitaab wa sunna wa bi xadisi képp ku weddi rek xeefar nga de bu ko defee nag ci kaw loolu bon gëm yàlla mooy lan gëm yàlla mooy gëm lépp loo xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dikkee na ko ci xam-xam loo xamee ne yonent indi na ko nga xam ne mën nga koo xam noonu rek saa nga dem ci daara ji saa nga jàng xam nga ko noonu comme weeru koor ku ne xam na ne weeru koor yonent ko fi indi alquran yonent ko fi indi loolu moom nga jàng nga ñàkk jàng xam nga loolu bon nag weddi ko mooy weddi nga yonent yàlla muhammad weddi nga leneen waaye nag xam-xam boo xam ne nag loo xam ne nag bala ngaa koo xam ala fokk nga jàng dugal ci sa xel gëstu nangam ak gëstu loolu moom gannaaw xam-xam moo la ciy àggale te amoo xam-xam boo ko weddee itam taxut nga doon kéefër ndax sa xam-xam àggut foofa gannaaw sa xam-xam àggu fa ñu wax la nga ne loolu du dëgg xaw ma ko bu boobaa itam loolu taxulaa doon kéefër de waaye nag li nga xam ne moom xam nañ ko rek comme ça ñépp a ko xamandoo loolu moom boo ci weddee benn rek kéefër la de ah kéefar itam dana ñëw ci ñetti façon kéefar comme kéefar ak iblis nga xam ne xam na ba pare weddi ak kéefar goo xam ne sa xol weddi na waaye sa làmmiñ a ngi wax ne jullit nga comme naa feq yi am na kéefar goo xam ne itam dangay wax ci sa da ngay da jàpp ci sa xol weddi di wax ci sa làmmiñ gëm wala nga wax ci sa làmmiñ gëm te sa xol weddi na yooyu yëpp feq la yooyu yëpp ñetti kéefar yooyu yëpp seen borom safara lañ jëm ndax kéefar dëgg lañ def ñi nga xam ne nag dañoo kéefaru walillaahi ala naasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabiilan wa man kafara fa na laa ganiyyun anil aalamiin ak itam ushkuru wala takfuru gëm leen yàlla topp leen ko te euh, topp gërëm leen xéewal mi leen yim leen may weddi xéewal itam kufru lañ koy tuddee waaye du càggeen mooy kufru bi génn nit ci diine du du génne nit ci sariyaatu de su ko defee ñeenti xaaj xaaju kéefër yooyu yëpp am na ci yoo xam ne kéefër bu mat sëkk la lazina kafaru wa saddu an sabilillahi kéefër sëkk la topp iblis weddi lu yàlla lu yàlla lu yonent wax weddi lu yàlla wax loolu yëpp boo ko weddee kéefër bu mat sëkk nga de safara rek mooy doon sa attewaay yeneen kéefër yi nga xam ne nag kéefaru Eh, weddi xéewal nangam ak nangam yorante yu mel noonu wala loo xam ne yaa ngi koy weddi parce que sa xam-xam àggu ca ndax amoo xel mu la xóotal ba nga mun a àgg ca ci xam-xam bu wér loolu itam du kéefar goo xam daf lay weddi googu du weddi nga xam ne daf lay taxa taq dugal la ci kéefar de euh. bu ko defee nag anzartahum am lam tunzirhum ñoo xeefa yooyu yëpp yooyu yàlla wax nag nga waat leen ak nga ñàkk leen a waat moo xem de nga waat leen ak ñàkk leen a waat ñoo xem ci ñoom waaye xemut ci yow yonent yonent yàlla daf ko wax ne rek yow balligh ma unzila ilayka min rabbika do bon nag mu bañ koo def ak ñàkk koo def emut ci moom waaye kim em ci moom mooy ki nga xam ne xeefar bi nga xam ne moom gëmut jeex na nga waade ko du tax mu gëm nga ñàkk koo waade du tax mu gëm ndax ñoo wax ne sawaun na awa asta am lam tëkkun minal waa'isiina xeefar yi tontu nañ loolu seen yonent yi su la neexee waadee su la neexee ba nañaa waade ñun gëmuñ la faalewuñ la toppuñ la su ko defee nag gannaaw ñoo mel noonu yàlla yàlla wax wa eh, ba nga xamee ne nag dee nañ ci loolu ku dee ci loolu te tuuboo xeefar nga safara nga jëm يفرينك شي سواء علينا أو أو أو عست أم لم تكن من الواعظين jamono dana ñëw danañ waxal seen bopp ne sawaun alayna ajazina am sabarna ma lana min mahaysin ndax bu ñu demee ba laaxiru yóbbu leen safara ñoom ñëpp ñu nekk ci safara dengoo ñu ne ah jullit ñi daal nañ nekk woon aljanna nañ nekk woon àddina dañ daan nekk di jooyoo ko tuub balu yooyu rek ci lañ nekkoon bon nag ñun nañ nekk ci loolu su ko defee ñu nekk ci loolu junney at junney at di jooy aka jéggaloo ko kenn faalewu leen ñu ne ah yu bon nag ñoom itamit dañ daan muñ ca àddina bon nag nañ muñ rek buñ muñee muñee muñee muñ junney at kenn faalewu leen ñu waxal seen bopp ne sawaawun alaynaa jaziyanaa am sabarna, maa lanaa min maxiis safara dal dara génnetuñu ci de su ko defee itam yàlla tontu leen ne sawaawun aleykum sabartum am la sawaun aleykum sabartum aw la tasbiru sawaun aleykum muñ leen bañ leen a muñ yooyu yëpp atte woon ngeen seen bopp ne yéen du ku leen waaree itam du tax mu gën ci yéen de bon nag safaraangoog muñ leen bañ leen a muñ dara du leen ci génn de <coughs> ah, ah. téere bi téere alxuraan nag suratu baqara moo ci njëkk a génn suratu baqara nga nee lam mooy ne moo gën a gudd ci suuratul alquran yépp laaye yi gën a tedd ci alquran boo demee mi ngi ci suuratul baqara mooy ayatul kursi ci la nekk mooy sang mooy sang laaye alquran yépp moo tax itam téere boobu ñu wàcc ko ci yonent Yàlla Muhammad moo tax mooy sang nit ñépp e, mooy sang mindeef yépp yoonu téere boobu wàcceel nañu ay laaye yoo xam ne laaye yuy jox nit yaakaar la ak ak ak ak xéewal ndax boo demee doomu aadama ak jafe-jafeem ak ay complication ak bakkanam ak réyaayam ak fonk gi fonk boppam mën naa dugal ci boppam mën naa dugal mën naa duwal boppam ci lu ko neex lu mu bëgg ak lu mu bëggut ndax topp bakkanam topp réyaayam topp may diw topp may nangam topp lii ak li yàlla bind ci doomu aadama ci mutanaqidaat tey nga mel nii ëllëg nga mel nii wala léegi nga mel nii balaa léegi yee jeex nga mel neneen loolu yépp dafay liggéey ci biir doomaadama aadama bu ko defee nag doomaadama mën naa loolu mën naa yëngatu ci moom topp bakkanam ba nga xam ne gisul dara lu dul bakkanam boo koy wax boo koy jéem a wax sax pour digal mu lay wane yow da nga maa yeb da may xeeb lu tax ngay dugg ci sama mbiri lu tax ngay dugg ci sama yàlla ko bindale rek ne mom mo mel nonu nonu mu mel nak ken munu ko ci génne lu dut yàlla mi nga xamné moko def ci mom motax yàlla mom nga xamné ne doom xam na doomu aadama waxtu nek daf koy xol bëti yërmande bëti diko jox yaakaar bëti di ko xool bëti lu rek ñëwal bo ñe bo ñu ngey gor gor rek di nga aksi ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim yéen jaam yi nga xam ne yàq ngeen seen bopp yàq ngeen seen bopp ba amatu leen benn yaakaar laa taqnatu min rahmatillah bu leen naagu ci yërmande yàlla inna allah yaxfiru zunuba jamian de bàkkat yépp la yàlla di yégale de innahu huwal gafuru rahim bon nag noonu la yàlla mel ak doomu aadama ndax moo ko xam moo ko bind moo xam ay jikkoom moo xam ay soppeekoom mooy di koy soppi léegi di ko soppi léegi léegi léegi léegi loolu yàlla rek moo ko xam de moo tax yàlla rek moo ko ko mën a fajal keneen mënu ko koo fajal de am na ay docteur yu ñu wax naan ay psychologue lañ boo ñëwee ñu lay waxtaan ne dañu lay jéem a fàttaliku foo jógee fuy sa cosaan luy sa wax bi nga nekkee xale noo meloon noo meloon ci sa biir famille yooyu yëpp ñu ne koy xam pour àgg mën laa génne ci coono bi nga xam ne nekk nga ci waaye yàlla mi nga xam ne nag moo gën a teew teew teew teew moo la gën a teew sa bopp léegi léegi yàlla moo la wax ne yow doomu aadama ñëwal ci man rek kon li ngay ragal yépp ma dindil la ko waaye nag su fekkee am nga leneen loo yaakaar ne mën na laa dindil li ngay ragal dangay ndax sa bopp rek dara mënu la ko dindil de waxuma nag ne borom psychologue yooyu li ñuy def dëgg waxuma loolu dëgg la li ñuy def dëgg la parce que ñu ngi ko teg ci kaw xam-xam waaye am na loo xam ne moo gën a wér loolu ñuy def moo gën a njëriñ loolu ñuy def mooy li ñu yàlla wax yaa ibadiy alladina asrafu ala anfusihim laa takk taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamian innahu huwa alxafuru rahim wa anibu dellu leen ci yàlla rek bu ngeen delloo ci yàlla fekk ne loolu ngeen di tawat yépp ci seen bakkan yéeg seen jëm yéeg seen société yéeg yépp dangeen fekk ne yàlla moom borom yàlla wax na leen man borom yërmande la te boroom jéggale laa te boo ñëwee dinaa la yërëm danaa la danaa la yërëm danaa la jéggale loolu ci ah, alxuraan jooju ci lañ koy mën a ci lañ ko déggee ci ci la nekk yàlla ko wax ne loolu mooy atte yi nga xam ne moom la yàlla wàcce ni nit ñi de su ko defee nag yow boo gisee leneen ne mën naa ko sukkandikoo demal waaye daal garanti bi alquran am moom jox la ko wa anibu ila rabbikum loolu garanti boobu keneen amu ko pour yow de xatamallaahu kaste na yàlla ala qulubihim ci xol seen ñoom xeefar yooyu yàlla kaste seeni xol ba mu ñoo dégg dëgg dëgg xol euh, euh, dëgg dugg seen xol yi de wala samihim añi nekk la ci barab bi dégguwaay seen wala absaarihim ak ciy bët seen gisaawatul muuraay de ñooñu ñëpp boo demee da ngay gis ne yàlla kastane seeni xol mënatuñoo dégg dëgg yàlla kastane seeni bët mënatuñoo gis dëgg li ñu gis yépp mooy seen bànneexi bakkan yooyu nga xam ne topp nañ ko te loolu rek moo am ci ñoom njëriñ moom dañuy gontal moom dañuy xëyee buñ xëyee lu leen di may seen ñu dëggal seen bànneexi bakkan yooyu rek ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ndax nag lu tax yàlla moo kaste seen xol ba mënuñoo gis lu dul loolu de wala hum war na ci ñoom azabun buggal azimun mu dee aji dëhër azimun mu dee aji sax azimun mu dee aji jokkalantoo de yàlla mu ngi leen di mu ngi leen di xaare moo xam ne nag mbugal mu dëgër la mbugal mu jokkaloo la mbugal mu sax la ci seen kaw du dindee ko mukk ndax noonu la yàlla noonu ñu doon wéy de yàlla toppeeku seeni bakkan am na loo xam ne moo leen di xaar mooy pay ak booy ak pay pay googu mu leen di fay nag mooy dugal leen jahannama mbugal moo xam ne mbugal moo xam ne du dagg mukk wa mina naasi aji nekk la ci lenn ni mu ngoog alquran dégg nga ko wax nañu ci ñetti qualité ay nit ci ñetti qualité nit nit ñi nga xam ne mooy jullit yi lu mu leen wax yuminuuna bil ghaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سين خبر لو غات لا نيوم جولي ني هفر ييتام نيو نان يالا غي واخ سي نيوم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم بشاوة ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون يهنا سين بير فوف ديغنتي Eh, liggéey bu la yóbbu aljanna loolu jarut coow yóbbu lu la yóbbu safara jarut coow waaye lii yóbbu nit safara ak aljanna nag mooy li nga xam ne mooy ñëw si yàlla na ko waxtaan si mooy naafeq yi naafeq nga xam ne farewut fenn bu la gisee ni la maag yow la gis kii ni la yow la eh xanaa li ma gisoon mi doon wax ak moom dama ko doon nax rek man yow rek la ànd yow tamit kooku ñëw nga wax ko leneen keneen ñëw nga wax ko leneen loo xam ne benn bu ci nekk bokkut ak la nga xam ne moom nga jàpp ci sa xol li nga jàpp ci sa xol yow dëgg-dëgg mooy naka laa def ba jëriñoo leen rek naka laa leen di wax ba jëriñoo leen na wax ji neex rek dugg ci seen nopp ñu gëm ko waaye man li may wut ci ñoom mooy naka laa leen di jëriñooye rek bu ma amee njëriñ loolu baax na bu ma amul njëriñ loolu ma dem seeti ñeneen yoo xam ne mën naa faa amee njëriñ de mu ne kalaasu naafeq boobu nag moom la yàlla de waxtaanal ñii jullit ñeeg xéefar yi kenn ku ci nekk ñaari laaya rek ñoo wàcc ci yow fukki laaya ak ñett wàcc na ci ñoom yoo xam ne dafay génn seeni jikko ak seeni melokaan de mu ne wamina naasi aji nekk la ci lenn nit ñi man yaqulu ko dana mu wax aman naa ñun de dëggal nañu billaahi ci yàlla wal yow mi ak dikk ak bés alaaxir ba daa aji bés ba daa aji mujj de am na ci naafeq yi ñoo xam ne buñ gisee jullit ñi dañ leen di wax ne ñun gëm nañ yàlla gëm nañ alaaxira lo loolu la ñuy wax jullit ñi waaye yàlla ne wa maahum den ñoom bi mu'miniina na way gëm de yàlla mu ne gëmuñ dara dañuy fen rek dañuy dañ leen di uruj rek dañuy wax dara du ci dëgg yu xaadi'uuna allaaha danañu hurujanteeg yàlla wallaziina ak ñaaña amanu gëm nañu wa maa yu xaadi'uuna waaye huruj ti ñu illaa anfusahum ndare bopp seen wa maa yash'uruuna te yëg ci ñu ne seen bopp la ñuy huruj de mu ne mu ngoo ñoom xeefar yi ñoom naafeq yi ñu ngi wax naan dañuy uruj yàlla dañuy urujanteeg yàlla ndax mu xaadaa mooy jëflante mu def la nga def ko waaye nag yàlla moom amut nu muy jëflanteeg yee fay di xurujanteeg ñoom ñoom kay ñooy xuruj seen bopp foog ne yàlla la ñuy xuruj yàlla bàyyi leen ci wuy googu xuruj seen bopp rek mel ni daf leen daf leen cee fekk si waaye fekk siwu leen ci ñoom ñooy xuruj seen bopp ndax li ñuy def yépp seen bopp lay daanu ñoom ñooy mujj euh, euh, kéefar kéefar googu ñu nëbb yooyu mooy mooy mujj tëj leen ba nga xam ne dootuñu xamati luy lu ñuy def lu dul rek luy dëggal kéefar googu ci ñoom su ko defee nag mu mel ni ñoom dañuy wax nit ñi jullit ñi waaye ñun gëm nañu yàlla ñun di ngeen nekk ci lañ nekk nangam ak nangam yàlla ne wa maahum bi na gëmuñ dara yuxaadiwuna allaha danañu xur yàlla wala ma amano ak ña nga xam ne gëm nañ wa maa yuxaadiwuna xur ñuy daal soom dara bopp seen de ñu ngi wax naan gëm nañ danañ gëm yàlla topp nañ yàlla eh, di ko wax jullit ñi waaye yàlla ne gëmuñ dañuy uruj jullit ñi rek waaye mu ne uruj nag seen bopp rek la ñu uruj de wa maa yashuruna te yëguñ sax ne yëguñ sax ne yëguñ sax ne ñu ngi uruj seen bopp bu ko nga xamee ci ne xam njël benn xam-xam mooy boo abut yëg doo mun a am xam waaye boo xamee ne yaa ngi commencé yëg rek da gis ne xam ak laaj ak gëstu mi ciy topp bu ko defee nga xam-xam man caa génn waaye su fekkee yëg googu amoo ko bon nooy amee xam-xam yéefar yi yëguñ sax ne li ñuy def ñoom lay lor yëguñ ko bon munuñ cee xamee dara waaye ñi nga xam ne nag am nañ yëg yëg mooy tàmbali mbàyyi xam-xam boo yëgee rek commencé nga di gis noo daawut gisee di xam noo daawut xamee di gëstu noo daawut gëstoo su ko defee loolu di la gën a ubbil buntu xam-xam waaye yëg googu boo ko amut xam-xam du mën a ñëw ci te loolu moo dal yéefar yi ñu ngi nax seen bopp waaye yëgu sax ne seen bopp la ñuy nax astamaa nag di xam ne seen bopp la ñuy nax de bon xam xam-xam tàmbali mbaayu xam-xam mooy yëg waaw fi qulubihim aji nekk la ci xol seen maradun sikk fi qulubihim aji nekk la ci xol seen maradun naafeq fi qulubihim aji nekk la ci xol seen baradun dun doy doy di Pastef de ñom yëpp dañ ko firé de day ma dañu dañu dañu don ay nafiq wala sen xol yi dafa feebar wala dañu amut Pastef bu dëgër rek sen Pastef yalla mo dëgë dëgërut waaye nag gannaaw non lay mel amuñ sikk waxtu nek yalla daf leen di doli lo xam daf leen di gëna a nuural ci sen kéfer di leen di gëna a weddiloo yàlla di leen gëna sori lo yalla loolu leen yàlla def loo di leen xiir toujours de walahum war na ci ñoom azabun bugal alimun mu de borom ak mettital de yàlla naa fekk yooyu da ëllëg ci àllaaxira na leen jox mbugal moo xam ne mbugal mu metti la bi ma kaanu ca sabab si la nekkoon yëkk yi bu na di weddi yàlla di weddi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak lim di ak lim dikkee ci ay dëgg de yooyu yëpp dañ ko weddi woon waaye seen pay ak leen di dara gënte dara caay-caay rombut kéefër waaye mbugal itam romb safara de ñoom it loolu ñuy wax yépp seen pay dana ñëw te mooy danañ dugg jahannama dugg safara te kenn du leen ci génn de wa iza qiila dem waxeef na lahum ñaar leen laa tufsidu waay bu leen yàq fil ardi ci suuf xaalu ñu ne innama nahnu naka nun muslihuna way xéwénal lañu way xéwénal lañu boo leen waxee ne bàyyi leen yàq ngeen di yàq ci kaw suuf suuf si kenn mënu koo yàq waaye li yàq suuf mooy ne su fekkee aji oote yàlla ñëw na di oote lu demee nekk ab yonant di oo nit ñi jëmee leen ci yàlla sëriñ bu yàlla may fatxu fatxu minallahi tabaraka wa taala ba mel ne fatxul ambiya yi mu ñëw di oote jëmee ci yàlla képp koo xam ne yaa ngi gàllankoor loolu rekk yow yaa ngi yàq ci kaw suuf parce que yaa ngi yàq nit koo xam ne moom la yàlla sant ne ko dundalal suuf si lu mu koy njëkk a dundalee mooy na ko dundalee jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduuni bon lu njëkk a dundal suuf mooy jaamu yàlla su fekkee nag nit kooku yaa ngi jéem a jaar digganteem ak mu jaamu yàlla bu boobaa yow yaa ngi yàq suuf su ko defee nag dooyam foofu nag seet lépp loo xam ne yaakaar nga yow ci sa bopp ne loolu dana rafetal suuf dana baaxal suuf dana tax nit ñi jublu ci loolu ba fàtte ootekati yàlla bi muy yonent bi muy saalixu bi nga fàtte leen bu boobaa yaa ngi yàq ci kaw suuf de waaye suuf moom ni mu tëddee moom kenn kenn mënu koo yàq de ndax yàlla ko bind moo ko garanti ba jamono ba nga xam ne fa lay jeexal mission ci àddina de xaalu ñu ne damaa naxoon na ko ñu muslaxoon a waxee na lañu bu ko defee nag naa feq yi ak yéefar yi dañoo dañoo réer réer réer du rek xam mbiri àddina yi xam doxalinu àddina yi xam science bi aju ci àddina ak doxal ko du loolu rek mooy xam-xam loolu benn parti la rek ci xam-xam waaye du mooy xam-xam yépp am na beneen xam-xam boo xam ne itam noonu la amee solo ci doomu aadama dama dama war na koo gëstu war na koo xam mooy xam-xam bi ko tëkkaleek yàlla boromam ndax am na lu ko tëkkale ak ak ak boromam yàlla su ko defee xam-xam boobu moom itamit xam-xam la waaye comme ni ma ko waxee du moom rek mooy xam-xam ñaari xam-xam yëpp nag booloo nekk benn ñaari xam-xam yëpp bu booloo mooy xam-xam bi nga xam ne moo gën a sawar moo gën a sawarloo doomu boo xamee alxuraan xam diine xam xadis rasulillah mën a dégg dara ci technologie ni muy doxee mën cee xam dara mën cee am dara ci ubbi loolu yëpp dana la yokk dëgëraay boo xam ne ku ko amul yaa ko gën a dëgër ku amul loolu yaa ko gën a dëgër yaa ko gën a mat nit yaa ko gën a mën a dimbale doomu aadama boo ko amul nag ba pare nag waaye am nga sa làmmiñ wu rëy lu nekk ñeme naa koo wax lu nekk ñeme naa koo def te loolu moo gën a bëri léegi su ko defee nag yow yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne da ngeen di yàq suuf da ngeen di yàq suuf de moo tax naafeq mooy loolu ñoom ñu ngi yàq yàq yàq yàq ba pare te boo leen waxee ñu ne ñoom dañuy defar dañuy dañuy defar ah, seen defar yooyu nag kenn du ko weddi ndax ñi ngi tabax ñi ngi yëkkati ñi ngi tabax ay ay monument ñi ngi tabax ay lii ñi ngi tabax ay lii yooyu yëpp ñu ngi koy yëkkati ne dañ koy euh, def pour mu nekk patrimoine réew mi yëkkatiku réew mi xam-xamu réew mi alal ju bëri nga def ko ci ne da ngay yëkkati réew mi taarixi yan fekk am na doomi réew moo xam ne ñu ngi nekk fii amuñu sax ñu dundee wala luñ sol wala luñ lekk yow nga yëkkati monument boo xam ne junne lu mat ay téeméeri téeméeri mètre def ci alal ju du jeex du xaaj ne loolu da ngay defar suuf déedéet defaroo suuf da ngay yàq suuf waaye nag comme que sa bakkan noonu la gisee ne loolu mooy rafetal mooy tax nit ñi ñi taarix naw la ne bàyyi nga sa réew patrimoine boo xam ne adduna bi yëpp a koy seeti adduna bi yëpp bu ñëwee seeti ko lu ñuy gis lu ñuy jëriñoo gisuñ dara jëriñoo wuñ dara buñ fa ñëwee toog xool def seen yëfi àddina tasaaroo dem waaye bon kay ku tabax jumaa ji moo gën a bàyyi patrimoine de ndax boo ñëwee da nga ko gis sa xel dana dal dugg ci biir ba duggee da nga julli da nga fa jëlee dara sa digganteeg yàlla waaye dem taxaw ci kanam benn monument rek xool xool xool ba sa xol xool xool xool rek ba jóge fa loolu ku ne xam ne na ne liggéeyu dara defarut pour doomu aadama defarut pour nit dafay defar rek parce que euh, yàllaa ko xiir euh, xiir bakkanam rek jëmee ko ci loolu de bon defar defaral defaral suuf defar suuf naa fekkee ñu ne innama nahnu muslihuuna ñun dañuy éwénal waaye éwénal gi yépp bu ngeen ko seetee yépp ci àddina bi rek la aju comme ni ma leen ko waxee léegi patrimoine yeeg statut yeeg yooyu yépp ñuy topp di yëkkati ne dañ koy defaralee suuf dëgg-dëgg amalut njëriñ suuf daal amalu njëriñ benn amalut benn njëriñ suuf oo oo waaye xanaa kay yàqal doomi suuf yi ndax alal jëm ko cay def di ko liggéeyee doomi suuf si soxla nañ ko école yi soxla nañ ko jàngukaay jàngukaay élèves yi soxla nañ ko maître yi soxla nañ ko ñoom ñëpp boo demee ñi ngay mer di euh, di di di di grève di nangam ak nangam jox leen ñu luñ dundee jox leen ñu luñ dëkkee ñoo leen dire dañ leen tabaxal dañ leen tabaxal benn monument pourquoi ñuy tabax monument te man damaa xiif loolu du dëgg du yoon de wa isa xiira ne waxeef na lawum ñaar leen aminu gëmmeen kama amana naka gëmmeen na su nit ñi xaalu ñu ne anuminu ñun de gëmtiñu kama amana na ko gëmee sufa way way way réer ñi ñun de duñ gëm yàlla mukk ñi ko saxaaba yonent yu dof yi gëmee yàlla ñu mel ni ñoom di eh, di dof dof di nekk ay dof ci kanam yonent bi loolu ñun duñ ko def de duñ leen gëm de duñ gëm mukk comme ni saxaaba yi gëmee de wa isa laqu daje nañu alladina ñaaña amanu gëm nañu xaaloo ñu ah walakin du fi nekk laa yàlla mun a xam ci ñu de wa isa ndem daje nañu alladina ñaaña amanu gëm nañu xaalu ñu wax ne aman naa gëm nañu bu ñu demee ba nga xam ne gise nañoo seen sang yi nga xam ne ñooy seeni seytaane way daa xalaw néew nañu la shayaatinim jëm ci ay sang seer bu ñu demee ba wéet seen seytaane yi nag nga xam ne ñooy seen kilifa yi ñooy seen njiit yi bu ko defee ñoo naan eh déedéet ñun dañ leen di nax rek ànduñu ak ñoom gëmuñ yonent gëmuñ li ñu leen wax waaye dañ leen di nax rek ñu nekk ak ñoom ngir dund de ndax lan lu ko indi yonent yàlla daf ko yónni ne ko demal umirtu an uqaatila annaasa xatta yaqulu laa ilaha illa allah fa in qaaluha asamu minni dimaahum wa amwaalahum illa bi xaqiha ba bu ñu waxee loolu rek mucc nañ ci man seen alal yi itam na lu dul dëgg joo xam ne yàllaa ko dogal ci kaw alal ji wala dëgg goo xam ne yàllaa ko teg ci sa kaw yow nit ki loolu rek ba nafeq yi déggee loolu ñu gaaw bëgg a mucc ci jaasi yonent bi ñi ñëw ne yonent gëm nañ ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah gëm dugg ci diine ji te duggewuñ gëm yàlla seen xol gëm yàlla nekku ci boo gisee laaye ji yeesu léegi fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu maradan wala hum azabun alimun bima kaanu yukazibun lu tax loolu ndax ñoom ñëw nañ wane ne gëm nañ yàlla te gëmuñ yàlla su ko defee nag buñ gëm a dee buñ gannaaw wone nañ gëm nañ lu lislaam santaane rek danañ ko def lislaam sant leen julli leen ñu julli te gëmuñ ko lislaam sant leen génne leen asaka ñu génne asaka te gëmuñ ko lislaam sant leen or ñu or te gëmuñ ko lislaam sant leen génn ñu génn dem jihaat yi te gëmuñ ko bu ko defee loolu yëpp dafay nekk mbugal ci kaw mbugal moo xam ne ñu ngi koy dundee fii ci àddina bi bala ñoo àgg ëllëg ci àllaaxira mu nekk mbugal moo xam ne fa lay gën a méttee de su ko defee mu ne fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu maradan ndax lan yàllaa ngi santaane yonent bi mu leen di sant ñuy def julli leen ñu julli par force te gëmuñ yooyu yëpp yàllaa ngi leen di dolli yàllaa ngi leen di dolli kéefër ak lëndamaayu xol de way daa leen de boxe xaloo nañu way daa xalaw nañu wét nañu jem shatim jëm ci sang seen xaalu ñu ne leen innaa naka ñun maakum way ànd na jóg yéen de bu ñu demee ba ci seen sang yi nag ñu leen déedéet ñun yéen la ñu àndal de moo tax ëllëg ci àllaaxira bu leen yàlla di fay mu ngi leen di fayee ah ba ñuy dox ànd ak ah, ah, jullit ñi qilat oh. yow waraakum faltamisu nuuran qilat yow waraakum faltamisu nuuran ñoom gëmoon nañ yàlla boole nañ ko ci seen làmmiñ su ko defee loolu musal na leen ci jaas yoonant nekk nañ ci boo lëgee nag bu ñu demee ba àllaaxira siraat ñëw jullit ñi ci kaw siraat ñu ngi dox ak seen leer bu ko defee ñoom naa fekk yooyu ñu ngi dox ci gannaaw jullit ñi bu ñu demee demee demee de ba ci kanam naa fekk yi gis ne leer gi ñu doon doxee yàlla dagg na ko gisatuñ dara bu ko defee ñu naan jullit ñi kii la joo war a uh, iltafitu bi nuurikum woon leen gestu leen ñu ñun suñ leer dagg na leer gi ñu doon leerloo dox ci kaw siraat dagg na bon gestu leen ñu ndax ñu am tuuti ci seen leer gi ñooy leen dellu leen ci seen gannaaw dem leen utti ko fañ ko doon utee te mooy àddina te fi mu ne delloo àddina dootu amati de xëy na yoo war a akum faltamisu nuuran faduriba baynahum bi suurin lahu baabun baatinuhu fiihi rahmatu wa zaahiruhu min qibalihi al-azaabu ñu daal di tàggoo nag lañ gëmoon ci lañ nekkoon ci àddina doon ko waxee ne gëmee nañ ko loolu la leen loolu lañ leen may ci bi ñëwee siraat ñu dox ci tuuti ndax waxoon nañ ci àddina laa ilaha illallah gëmoon nañ loolu moom nañ leen may nag ñu topp topp topp topp ba foog ne danañ mucc bañ demee ba dox ba tat rek leer ga dagg ñu daal di daanu këndam ñu ñu ñuy coow nag neen nañ leen gestu ndax ñu am leer guñ demee ñoo leen ak yow waraakum faltamisu nuuran dellu leen aljanna doon leen ci àddina foofu lañ doon utee leer de dina ko amut nag jeex na te dootu leen dellu àddina ndax yàlla nee nag képp ko xas ñu wala xëy rek jeex na dootoo dellu àddina de. xaalu hmm? ñu wax ne inna naka ñun maakum way ànd la ñoo de ñun yéen seen seen yéenay suñuy sang de innama nahnu naka nun mustahzi'una way yëj ji la ñu ci ñoom de ñun dañ leen di yëj ji rek di wone ne ñun gëm nañ te ñun gëmuñ allahu burne allahu yàlla yestasiu dana mu yejji bihim ci ñoom yàlla mooy moo leen di yejji de wa yumhiluhum wa yumudduhum te mu yiixe leen fi tuyaanihim seg beew seen de yàlla moom moo leen di yejji ba pare te dana leen may yiixe leen du leen gaaw a rey leen nag ci seen beew googu ñuy beew di fontu rek di fontoo seen bopp di fontoo jullit ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo perte ñooy ñi nga xam ne ñoo def commerce boo xam ne ton tono bàyyeekoo wu ca waaye perte moo ci bàyyeekoo de ndax nit koo gis muy dem rek mu ngi ci commerce am mi ngi ci liggéeyam liggéey bi yaa imaa moo indil ko tono yaa imaa moo indil ko ñàkk perte su ko defee nag moom la yàlla di nettali fii mu ne ah, ulaayika ñoo ñe la gaay di wax ne ay naafeq lañ allazina ñooy ñaaña ishtaraw jënd nañu ad dalalata ak raer ak réer bil ci njub de mooy ñooñu nga xam ne jaay nañ seen njub jënde ko xeefa jënde ko réer de toujours ci lugal arabia ishtara bi kaza mooy li nga bàyyi li bi nga xamee amul taari amul laam nag mooy li nga jënd ishtarawu dalalata bil maanaam jaay nañ njub jënde ko kees jëndee ko réer mu ne gannaaw jaay nga nag ala fokk war ngaa tono walla war ngaa perte waaye yàlla mu ne ñoom dañoo perte de mu ne fama rabihat tono tit tijaaratuhum ak yaxantu seen de ñoom seen yaxantu gi de ñoom dañ see perte de wa maa kaanu nekku ñoon muhtadiina di way jub de te itam doo nit ñoo xam ne nekk nañ ci kaw njub seen tijaarate wuñ ko woon ci kaw yoon jubut sen lépp lu ñuy def rek teguñ ko ci kaw yoon moo taxit perte rek moo ciy am de yay nettali benn buur boo xam ne dafa toog benn bés dajale xukamaaw yépp ak ay kilifaam kilifa yi palem ne leen waaw man dama gis sama nguur gi daal yëguma ci dara lu ma neex ndax buur yépp nii lañ mel ñu ne ko buur yi bi yépp nii lañ mel seen nguur yi yëguñ ci dara lu neex waaye nag dañ cee nekk noonu rek mu ne leen waaw nu may def ba nguur gi neex ci man ay borom xam-xam ne ko da ngay seet borom da ngay jege borom xam-xam yi borom xam-xam yi ñu lay digal li baax nga di ko def ñu lay won li bon nga di ko wattandiku soo ko defee yàlla dina la sàmmal sa nguur mu dal di dajale borom xam-xam yu bari ñëw ci moom ñu euh, ne leen de leen ma digal su ngeen ma gisee ne lii lu baax la ngeen sant ma ko ma taxaw ci lii safaan la bu ngeen ma ko aayee dinaa ci góorgóorlu ñu ne ko waaw loolu kay loolu kay loolu kay danañ ci sawar ba mu ko defee nag ñu nekkee loolu yàlla defaral ko nguuram mu dund ñeenti téeméeri at yoo xam ne bopp su koo metti nguuram dara yàquwu ci mu dal di toog nag jëmmi bés iblis ñëw ci moom ne ko waaw yow da foog ne nit nga da foog ne nit nga mu ne ko nit laa kay mu ne ko déedéet nit dana dund yéen téeméer an sa maam yeeg sa bàyyi kenn ci ñoom dund na ci yéen téeméer mun ne ah wax nga dëgg de mu ne ko yow yàlla nga ba bàyyil bàyyil ñi ngay bàyyil bàyyil affaire yi nit ñi ngay def yow yàlla nga santal nit ñi ci ja santal nit ñi ñu jaamu la mu daal di jóg rek egg ca minbar ba dal na hee mbooloo mi man maay yàlla léegi yéen ñëpp dee ma jaamu de ba mu ko defee nag dégg benn kàddu gu ko wax ne daan nga ñu sàmm doon nañ la sàmm ñun tamit léegi nag bàyyi nga sa càmm ak ñun ñu tamit bàyyi nañ la bala moo am ñetti fan rek benn buur bu ñuy wax buxtu sa ñëw toj nguuram gi nangu ci alalam ay ay ay ay ay toni toni urseki xaaliseki bokkut ak jur geeg jaam yeeg yépp daldi daale nguuram daldi koy moom de su ko defee loolu mooy eh, nit koo xam ne mi ngi dem di tijaara te tonowut kooku moom perte nguuram gannaaw boo xamee ne won na li ko sampal nguuram xam na ko li ko mayoon jàmm xam na ko mu dem jaay ko ngir jëndee ko àddina bu ko defee perte na ñaar ñëpp beneen buur moom ne dafa bëggul def ci àddina loo xam ne daal tabax boo xam ne moom rek moo ko musa def ci àddina léegi nag dajale ingénieur yeeg borom xam-xam yeeg ñu bëree bari ñëw ci ñoom tabaxal ko tabax boo xam ne tabax bi bala moo pare jiite na lu mat ñaar fukki at ak juróom tabax bi door a pare lépp luy rafet ci àddina lépp lu koy yëkkat lu koy yëkkati yépp def nañ ko fa bi tabax bi paree nag mu ne sama tabax bi nag bëgguma baadolo gis ko baadolo bu mu ko gis de ñépp mën nañoo ñëw seeti waaye baadolo yi ñoom nañ ko sori benn bés mu toog ci pale bi rek ñu ne ko ah buur am na benn baadolo bu nekk nële ca biir pale bi di seet di seet mu ne gardien bi demal rey ko gardien bi ñëw rek mu ne ko nii bàjji ne ko nii rek mu daanu dee ñu ne ko buur kooku rey na sa rey na sa garde ba mu yónni keneen dem neen rey ko kooku it ñëw mu rey ko mu dal na xaaral ma demal sama bopp dal di garde bi jaasam dal di ñëw baax si ci moom ne ko yow man may bañ ku xool sama pale bi yow ngay ñëw ci doxantu mu ne ko man maay malakul ci mu ne ko ah bon nag bàyyi ma ma ñibbi mu ne ko déedéet fii dama yow laa jël si mu ne ko baal ma dem waxtaan ak njaboot gu mu ne ko ah jeex na c'est fii ngay am doo def dara dal di dal di koy daanu mun a këndang foofu dal di daanu dee gisul tabax ba bànneex woowu ca ba mu ko defee nag fekk jamono yooyu am na benn saalixu bu baax bu dëkkoon ak moom ñëw ci ñëw ci moom malakul mawtu ñëw ci moom ne ko kala taxoon a mer ba nga gàddaay dee na léegi nag nooy def mu ne alhamdulilahi rabbil alamin oh, mu ne ko waaye nag man damaa ñëw jël si sa roxo gi nag yow tamit damaa ñëw pour jël si la mu ne ko waaw xanaa nga may ma ma dem waxtaan ak njaboot gi bala ma bala yóbbu mu ne ko demal mu dem ba mu yàgg mu ne ko ah jaru ko daal bàyyi leen ak yàlla rek yàlla mi nga xam ne moo moo ma gën moo ma gën a xam bàyyi leen ak yàlla rek jëlal defal la yàlla wax yóbbul sa rox dal di daanu foofu itam dal di deere su ko defee kooku moom perte eh, kii moom gañe na ci tijaaraam kële perte na moo tax mu ne naa nit ñaa ngi xëy taajiroon wa fa maa wa maa kaanu muhtadiina masaluhum melow seen ñoom naafeq yi ka masali ka masali mu ngi ni ki melaw kaa kay stawqada taal na mu naaran safara ci lëndamee guddi de koo xam ne daf doon tukki ba àll bi guddi mu lëndëm mu taal safara ngir wéttadiku ba mu taalee safara si falamma daat ba mu leeralee maa xawlahu la ci xéewam zahaba dina yàlla bi nuurihim ci leer seen wa tarakahum mu bàyyi leen laa yub fi zulmatin ci lëndëm laa yup yubsiruna gis ci ñu de bañ taalee safara si ba nga xam ne ñépp a ngi kontaan ñépp a ngi gisante ci biir safara si ngelaw ñëw rek dal di fay safara soosu gameet mu mel ni mustaam ñu dellu ci seen ñu dellu ci seen lëndëm de ota ah, fi zulumaatin laa yubsiruun summun ñoom way luu lañu walis dégg-dégg bukk mun ñoom way lu summun ñoom woy luu lañu way way tex lañu walis dégg-dëgg bukk mun way luu lañu walis wax dëgg om ñun ñoom way boom lañu walis gis yoonu dëgg de yooyu mooy naafeq yi yàllaa yàllaa ni ci ñoom fukki misaal ak ñett ngir mellan seen njikko bii moo ci njëkk koo xam ne taal na sa doon na tukki ci àll bi mu lëndëm mu taal safara ba safara si demee ba tàkk ba leeral nit ñëpp gis le gis nit ñëpp wéttaliku ci leeraayu safara boobu safara si tëb rek fay dana leen bàyyi ci lëndëm boo xam ne gisatuñ déggatuñ euh, euh, déggatuñ gisatuñ waxatuñ ñoom ñëpp ñu daal di luur euh, bu ko defee loolu muy tekki mooy mooy tekki ne naafeq yi duggoon nañ ci lislaam dugg ak du dugg gëm gëmuñ lu ñuy oote damu gëmuñ li ñuy oote ba ko defee nag ba àllaaxira ñëwee bañ dëggee ca kaw bañ éegee ca kaw siraat nañu way dox te siraat moo gën a ñaw jaasi moo gën a yëngatu jaan moo gën a melax melax ñu dëgg buñ dëggee ci kaw siraat yàlla may leen ñu dox tuuti ak leer ñu ngi ànd ak genn leer leer ak gëm gañ gëmoon ce gañ waxoon ne gëm nañ ko ñu dem tuuti rek leer gën a kamaj gisatuñ mu ne loolu mooy ñi nga xam ne naa feq yi nga xam ne doon nañu wax ci àddina ne gëm nañ yàlla gëmuñ yàlla buñ demee àllaaxira itam loolu la leen yàlla di fayee de bu leen mayee ñu ubbi leer ba gis ne yaakaar na ne rek mbir mi dox na leer ga tëb ne kamaj dal di fay su ko defee dootuñ aw ka sayidin iki mu deme ni aw niir mina samaay mu tukkee ci asamaan fii aji nekk la ca niir wa zulumaatun ay lëndëm zulumaatun ay lëndëm yu la way lëndëm yu rankaloo waraadun ak ak ak ak kii ak dënnu wa barqun ak melax yajaaluna danañu def asaabiahum اي ادمو لسين في اذانهم شي بكن سين من السوايق نيتتك ا آه، نيتتك آه، قلو بري رجال من السوايق ني رجال تخدي نيوم نيب ني جيل سين بارام دي داف سي سين بكن سين نوبو ني رجال دن دنو غي ndax mu baña tax ndax ñu baña tax de bu ko defé nak leb wowo lu muy tekki mu ngi melni aw ka sayibin mi ngi melni taw taw tin wacc lëndëm ànd ak lëndëm ñu nekk ci lëndëm googu mu ànd ak ay dënnu ànd ak ay euh, melax ànd ak euh, ñu euh, dënnu yu méttee metti ba nga xam ne dañuy jël seeni baaraam seeni i ët mu la di ko def ci seen noppu ngir ragal seen noppu yi bu ko defee loolu lu muy tekki mu ngi tekki aw ko sayibin iki mu ngi demee ni ki ab tab ab téere القران من السماء متكي اسمان داخ القران وحي غو بايكو لا فيه اجي نيك لا تي تيري بوبو ظلمات نجانتا كيفر كي نيتالي مبي هيفر وراد مون كي تك اي تك وبرق من كي نيتالي اي آه، آه، من كي نيتالي اي اي اي اي لير ده مون تيري بوبو مغي نيو يالا كي تودو هيفر اك لي لي نيك ba pare mu ngi leen di wax ni mu leen di tëkkoo ba pare itam mu ngi leen di woon ci téere boobu ay leer yoo xam ne mën nañ cee jaaree ba dugg ci yoonu yàlla waaye nag du tax ñoom ñu déglu ko de ya na yajaluuna danañu def asaabi awam ay lët mu la seen fi azanihim ci bakkan seen ci nopp seen mina sawaayiqi ngir tatak waade ga xasaral mawti ngir ragal a tuub de ñoom itam bu fekkee téere boobu loolu la ñu daal di jël seen nopp dootuñu bëgg a déglu li alquran di wax ndax dañuy bañ a tuub ndax bu ñu déggee li alquran di wax rek bu boobaa mën naa am ñu tuub ñu jël seen baaraam yi di ko def ci seen bag ci seen nopp yi ngir bu ñu déggee alquran ndax bu ñu ko déggee dañuy tuub de dégg nga yàlla wax mu ne na asabiahum xam nga dafa wax ne asabiahum suñ mbooleem baraam yi suñ mbooleem baaraam yi mënuñ koo dugal ci suñ nopp yi benn baaraam rek lañ mën a dugal te baaraam bi itam du yëpp benn lët mu la bii rek moo mën a dugg ci nopp yi bon nag lu tax yàlla waxee noonu yàlla def ñuy jàngal waxtu nekk lim wax wax yonentam bi sallallahu alayhi wa yi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla yar na ma te rafetal na sama yar moo tax yàlla su fekkoon ne wax na ne baaraam mu jël ñu ñu mu jël baaraamam def ko ci noppam bon baaraam boobu dafay geccewu am am kersa ci kanam moroomi baaraamam yépp ni moo doon dimbale xéefar waaye su ko defee nag yàlla tudd baaraam ba dafa tudd rek mboolem baaraam yi te bu tuddoon baaraam ba itam du tudd baaraam yépp genn wàll rek la ciy tudd lët mura bi rek la ciy tudd waaye loolu yépp tudd ko ngir rafetal baña baña rafetal rafetal jikkooy nit ñi ñu xam ni ñuy jokkalantee ak nu ñuy waxantee ndax doomu aadama joo gis yàlla bind na ko ba mu ko bindee ne wa nafaxa fiihi min ruuxihi yàlla ëf na roxom ci bakkanu doomu aadama ci ci ci jëmmu doomu aadama bon doomu aadama joo gis rek leeru yàlla mu ngi ci biir doomu aadama joo gis rek muy ànd ak benn xaaj ci yàlla mooy wa nafaxa fiihi min ruuxihi su ko defee nag nafa nafaxu boobu leer la ci doomu aadama ju nekk waaye doomu aadama ju nekk nag du moo am kattanu leer googu nekk ci moom mu mën koo génne dundee ko lu dul mu am ndimbal loo xam ne bàyyeekoo na ci yàlla ndimbal googu mooy ndimbalal yonent yi ak téere yi yonent yi bu ñëwee li ñuy defar doomu aadama yépp mooy ettal sa biir bu baax am na fa nit koo xam ne boo ko gisee dangay ngay noppalu ci sa àddina noppalu ci àllaaxira ndax nit kooku moo gën a cher urus moo gën a cher xaalis moo gën a cher looy ut nit kooku nekk ci sa biir boo ko amee rek noppal nga sa bopp ci àddina noppal nga nit ñi itam ci àddina ak àllaaxira waaye nag ñi mën a àgg ci xóotaayu génn nit kooku ci seen biir ay benn benn rek lañuy doon ah, mën nañoo ñëw mën nañoo nekk ay yonent gannaaw gi ñooy wàll yàlla yu sedd yu yu tell yi yu sell yi gannaaw gi mooy <coughs> nitu diine yi nga xam ne nekkal nañ diine waaye nekk nit kooka du nit ku nekk rek sol sa kaalaw rek te sa téere yaay nit ki diine déedéet nit koo xam ne moom la la yónent di seetloo ci sa bopp nit koo xam ne wa nafaxa fii min yi booba la nit koo ko nekk ci yow waaye nag jamono tarakumaatul xayaati dem na ba muur ko ba mënatoo koo gis su ko defee nag nit kooku lañ lay seetloo de ci laaye yi ñëw ci kanam dañ ko gis dañ ko gën a gis bu baax hmm. ah? والله يلا محيط عجيلهم لهم بالكافرين تيفري ده نيوم إيه يا هيفر يك لي ني داف ييب يالا خم نكو ليم نكو ده يكادو دنا جيغي البرقو آه، ملخغا يختف دي كف ابصارهم اي گت سين كلما اضا ببل لرا لهم يا لين مشو ني روخ واذا اسلم نم لن دمنا عليهم سي نيوم خامو ني تاخاو ده نيوم هيفر نك يالا خم سين بيد ييب خم مولين دي ليبل سي suuf si ja ndox ma say say boobu bàyyi ko asamaan ak barku boobu yooyu yëpp li ci nekk ak ni muy def ci nit yàlla xam na ko de ndax yàlla xam na ne ñoom waxtu woo xamee ne nag indi na lëndamaay ak ak ak ak ak ak xiin nga gis melax yi di dóor mu ne waxtu bu melax yi dóoree rek ñu dox parce que gis nañ bu melax ji taxawee rek ñu taxaw ndax gis ndax gisatuñ mu ne noonu la alquran mel ak ñoom yéen naa fekk yi waxtu woo xamee ne alquran wax na dëppoog seen bànneexi bakkan rek ñu ne ah waaye téere yonent bi daal dëgg la daal waaye waxtu woo waxee leneen rek ñu daal di wane ne ñu daal di génn ci dal di dal di mel ni du ñoom ñoo waxutoon loola démb rek mu ne nag loolu mooy melo xéefar yi nga xam ne yàlla xam na leen de waxtu woo xamee ne leer na ak ñoom di yonent di wax leer na ñoo ànd ak moom dox tuuti waaye suñ demee ba xam ne gis na ne nag li ñuy wax déggatuñ ko bu ko defee nag ñu daal di taxaw de walo sha allahu donte soboon na yàlla la zahaba kon mu demee bi samihim ci dégguwaay seen wa absaarihim ak ak gisuwaay seen de bu neexoon yàlla mu demee seen dégguwaay demee seen i gisuwaay inna laa naka yàlla qadirun aji attan na mu ala kulli shay'in ci lépp def de yàlla moom mu attan na lu nekk mën naa def lu nekk waaye nag mu ngi leen di muñal di leen jox waxtu di leen jox waxtu nekk beneen chance boo xam ne ndax da ngeen mën a góor góorgóorlu jéem a chance seen bopp wala déet yàlla moom yàkkamtiwul dara ndax lépp dana ko fekki re ya ayyuhan nasu e yen nit ñe obudu wetal len ak jamu rabbakum borom sen alladi borom ba nga xamne khalaqakum bindina mu len ngeen di ay tokanti maniyu ca seen dikki bàyyi walladina wa wa wa walladina tan bindi ñaña min qablukum way nek nañ ci nek sen la lakum naxtale yen te ngeen ragal yàlla ba jamu ko de yéen doomu aadama yi nga xam ne yàlla moo leen bind na ngeen xam ne yàlla moo leen bind moo bind itam yi nga xam ne ñoo leen njëkkoon yépp ndax bu ngeen gëmee yàlla ba jaamu ko loolu yëpp na leen may ngeen mën a àgg ci ragal yàlla de alladi yàlla ba nga xam ne jaale def na mu lakum ñaar leen larda suuf firaasan mu dib lal wa samaa mu bindaa samaan binaan mu lim téeg wa anzala mu wàcce mine samaay tukkee ci asamaan maa hmm, an ndox faaxraja tam génne bii ci moom mina samaraat ci xeeti meññet risqan muy wërsëg lakum ñaar leen fala tajalu waaye bu leen def lay ñeel yàlla leen daal leen ay bokkaale wantum yéen taalamuuna da ngeen xam ne ay de bind mi leen bindal suuf si mu nekk lal ngeen di lal di toog di dox di gas lu leen neex ngeen def ko ci kaw suuf suuf dara lu ngeen def rek nangu na ko mu yëkkati leen asamaan mu tiim leen da eh, di leen wàcceel ndox di leen wàcceel jant bi di leen wàcceel leer yépp asamaan sang leen ko defal mu tiim leen wàcceel leen ci asamaan suuf mu indi leen ndox moo xam ne li ngeen di bayeek seen mbay meek seen jur geeg yépp ci ndox moom ngeen di jëfandikoo ba pare mu génne leen ay wërsëg yoo xam ne yàlla leen ko may rek muy wërsëgu yi ngeen di euh, meññeet meññeet yi nga xam ne yéen ko jëlee ci seen i mbay yàlla mi leen defal loolu yàlla moomu amut bokkaale de bon nag bu leen ko defal bokkaale te xam ngeen ne yàlla moo amut loolu yépp xam ngeen ne yàlla moo ko bind de wa antum yéen ta'lamuuna da ngeen xam ne yàlla moo ko bind de wa in kuntum dem nekk ngeen fii raybin ci sikk mimmaa nazzalnaa ca la wàtte nañu ko ala dinaa ci jàm sunu ki yonent yàlla muhammad ci alquran faatu di kereen di suuratin ciw saar min mislihi wut naka kemem de yàlla yonent nee leen yàlla wàcce leen ci man alquran alquran jaa ngi nii yéen gëmu leen ko yéen a ngi sikki sàkka alquran yooyu ci seen wax rek la génnee ak ci seeni vocabulaire ci la génnee ci la alquran ji génnee yéen a am vocabulaire yi yéen a am baat yi yéen am yépp yéen am notion bi yépp am ngeen ko bon nag gannaaw alxuraan ji yonant moo ko wax ay arab ngeen comme moom fi mu jaar yépp fi ngeen jaar bon nag indi leen lu mel ni benn saar rek indi leen ko pour ngeen mën a weddi li ngeen wax li pour ngeen mën a dëggal li ngeen weddi ne yonent alxuraan ji bàyyi ko ci yàlla gannaaw moom leen def loolu nag bu ngeen boo rek nangu xam ne alxuraan yàlla ko wàcce ah ah wadu woo leen nag shuhadaakum ay ay ay xërëm seen in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina di way dëggal de min duuni laay ku dul yàlla in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina di way dëggal de <coughs> gis nga alxuraan foofu mu ngi leen di jalgati defi leen léegi yéen ak seen yàlla yi ak seen yàlla yi ak seen jinné yi yéen ñëpp dajaleen bu ngeen mënee indi benn suura bu mel ni bi di yonent di indi rek te du ngeen ko mën mukk laa dina yéen ak seen jinné yi ak seen yàlla yi yéen ñëpp dajaleen ngeen indi lu mel ni yonent yàlla li yonent yàlla Muhammad indi du ngeen ko mun te bu fekkee nag du ngeen ko mun te du ngeen ko munu leen ko te du ko mun bon nag gannaaw nanguwu leen bañ ngeen fayn leen tafalu ndem defu leen loolu walan tafalu te defu leen ko <clears throat> ndax du ngeen indi dara lu niroog lu yonent indi fattaqu ragal leen an naara safara la tii safara seen xam ne waquuduha am eh, ay jilitam am mattam annaasu nit ñaaha mooy xeefar yi wal xijaaratu ak doji de na ngeen wattu nag gannaaw mënu leen a indi lii yonent indi ci alquran mënu leen ko ak yéen ak seen i jinne ak seen yàlla yépp mënu leen ko bon nag na ngeen ragal safara si nga xam ne ëllëg yàlla xéefar yi mooy nekk ay matam de ak doj yi waa waaye def xa doof na ko lil xéef lil kéefiri na ñeexal xéefar yi de muy safara soo xam ne yàlla ko xaru ngir dugal ci xéefar yi de wa bashira waaye dëgëral alladina ñaañaa manu gëm nañu waa minu te ñu jëf saalihaati farata yaag naa fi la ya be la anna lahum naka ji nekk la sax ñeexal leen jannaatin ay tool te jiri yooyu dana daw min taxte yaa ceroon seen alanhaaru yor gi yenante de kullama rusiqu bépp bu wërsëgal def na leen min haa ci moom min samaratin ci xeetu wërsëg risqan muy wërsëg lawum ñeel le kullama ruziqu bépp bu lehaa def na leen min haa ca yooyale tool min samratin ci tib min samratin ci meññet risqan muy wërsëg xaalu ñu wax ne haza lile ruziq naa lehaloos nañu ko min xablu ca njëkk de meññet yi aljanna dafa niroo niroo niroo ba nga xam ne te garabe na li ko dalee ci ren yi ba ca congo toolu garab ga yépp meññan mi rek la boo tëddee di dagg boo toogee di dagg boo taxawee di dagg yépp nag ñen maa ngi ànd ak yow de te boo lëgg rek sànni rek mu saxaat dégg nekkat euh, beneen garab bu génne ay meññat su ko defee nag ñu ne buñ demee na bañ leen di indil teewal yi nga xam ne moom la leen yàlla di jox waxtu leen ko joxee rek ñu ne lii de mosoon nañ ko ndax mosoon nañ ko bañ nekk aljanna bañ nekk àddina wala déet ndax dañ leen koy indil ci façon boo xam ne miinoon nañ ko di ko gisee ci àddina ni orange mel noonu lay mel foofu ni yëpp ni mel noonu lay mel waaye nag boo demee ba dugg ci biir danga xam ne bii ak bële du benn de ndax bii nekk ci àddina bii ñun rek ñoo ci ñoo koy sonne bële nag yàlla moo ko defaral préparé ko mu toog du ñu xaar bon du benn moo tax nag ñu ne buñ leen joxee benn rek ñu ne lii de mosoon nañ ko ndax mosoon nañ ko ci euh, wërsëgi ak euh, wërsëgi ak wërsëgi euh, aljanna yi ñu lay jox rek buñ la joxee rek mu niroog bañ la joxoon nga foog ne benn la fekk du benn de boo ñemee rek xam ne du boo mosee rek xam ne du benn de bon nag wërsëg yooyu nga xam ne yàlla nañ koy wërsëgal ci aljanna waxtu ñëwee rek dafa bees tàq bokkut ak ba nga xam ne jotoon nga koo mos de wowutu joxeef leen ko bihaa ci moom bihi ci moom ci jooyu ris mutashabihat mbit muy aji de wala wum ñeel na leen fiihaa ci aljanna ya aswaajun ay jabar yoo xam ne ci xuur i ne mu taaratu ñu yuñ labal ci mbërëg ak leneen lu mbërëg de waxum ñoom xaaliduna way bel lañu fiihaa ca yooyu de koo